dégg de xasiru anfusahum wa la sànku na anhum ci ñoom maakaanu la nga xam ne nekkoon nañu yaftaruuna di ko duural yàlla ci ay bokkaale naan ñii la ñuy jaamu te yàlla ëllëg yowmal qiyaama yooyu yëpp daleen di réer laa jarama dëgg-dëgg daal annahum naka ñoom ñi doon bokkaale yàlla doon tooñ yàlla ci kaw suuf fil aaxira ci àllaaxira hum ñoom kese kese laa wax al aksaruun mooy ñi perte ñi inna allazina naka gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu yàlla wa amilu saalihaati ñuy jëfërata yi ak naafila yi ca na yàlla bëggee waax ba tuuñu toroxlu dellu bu baax a baax ila rabbihim jëm ci seen boroom ulaika yooyu la gaay ashaabul janna ñoom rekk ñooy waa aljanna daañ génn déedéet hum ñoom xaaliduun way béel lañu way sax lañu fiiha ci aljana jooju nee na masalul fariqayni melakaanu ñaari parti yi ñaari kuréel yi te mooy ñi nangul yàlla ak ñi ko nangulul kaay leen ma ma wax seen melokaan kal aama ah. dafa mel ni ki silmaxa wal asammi ak ku ki nga xam ne nangulul yàlla dafa mel ni ku silmaxa tëx wal basiri ak kuy gis wa sami ak koy dégg jullit mooy ki gis di dégg ndax ñaar ñi daañu yem duñ yem de hal yastawiya ndax daañu tolloo ñaar ñii ndax daañu tolloo masalan ci melokaan déedéet yàlla alors afala tazakkaruun tey ngeen waaroo ci lii jàngatee ci xam fi ngeen di teg seen tànk mm. mu ñëw nag ci yent yàlla nuux moom la njëkk laal xisaam tuuti wala qad arsalnaa dëgg-dëgg nag yabaloon nañu nuuxan yent yàlla nuux ñoo ko yabaloon ilaa qawmihi jëm ca bokki boppam ya nit niti boppam ya fam gënee àdduna màggee fa ba day noonu mu day ne ba mu dajalee mag ña ak muskalaf ya ne leen man mii kat lakum pour yéen dëkk bi pour réew mi man de nasirun ab kuppekat laa mu biinun bu leer ni muy waxee li muy wax daal su teeree amul loo bëggoon a wax fii wala lii lu doon amul de bokk na ci dama leen di wax te yàlla sant ma ko pour mu waral ko jottali allaa taabudu bu leen fi jaamooti bis ni tey illa allaha ku dul yàlla jaamu dafa leen ko yàlla kese kese kese gaa yi ne ko lu tax mu ne ah am na lu ma xam de inni man mi akaafu ragal naa aleykum ci yéen bu ngeen fi màggalee leneen lu dul yàlla wala ngeen jaamu fa leneen lu dul yàlla ragal naa bu baax a baax ci seen kaw adaaba yow mi du may bis alimin yu tar lool fii ci àdduna ak alaaxira kilifa yi jël kàddu nu taabali ne ko góor gi may nu kàddu nu sànni ci aslëf ñu ndax am nañ ci kàddu ndax ñun ñëpp dëkk bi ñun la ñuy diglu fa qaala waxal malaw kilifa ye yi gaa yi nga xam ne kafaru ñoo weddi min qawmihi ñoo ne maa naraaka foogewuñ la gisuñ la ngay nekk illa basharan lu nu mbindeef mislana yow nit képp nga ni loo ñuy jaay ni ñun de lu ñu loo ñuy leen xamul loo ñu jaay rek mën nañ kaa jënd nit dong nga doo dara da ngay andi reer di def yëpp kon lan moo tax nanga nga dikk di woote ak wilaaya ci suñ kaw ak yu kenn xamul Hmm? yii day tax doo xam nit yàlla xool na nit kese kese la ñoo bokk fu ñuy liggéey ñoo maasendoo ñoo julloo penku ñoo demandoor daara ñoo daan bokk darsu bu ñuy jàng a réer nga yàlla tënkuwul ci darsu bu ngeen daan jàng tënkuwul ci alal yi bu ngeen daan liggéeyee ndax mën na ko déey lu mu leen déewliyee yooyu si di xaj mel ni day tax doo mën a xam nit yàlla de wa maa naraaka foogewuñ la gisuñ la ittabaaka di la topp illa lazina lu dul gaa yi nga xam ne hum ñoom arasinu naa ñun daal ñu dul gisuñu gisuñ ñu lay topp lu dul suñ baadolo yi rek ñàkk solo jigéen ñeek baadolo yi daal ci gàttal ñi nga xam ne baadiyar ay dégg nga maam aji feeñ ji xalaat lañu rek amuñ benn xalaat bu sori daal du ñu xalaat ñoom daal amuñ benn xalaat wa ma nara fooguñu gisuñ lëkkum ñeel leen yow ak ñi la topp ali naa ci suñ kaw min fadlin benn mbaax wala benn ngëneel bu ngeen yor ba ñu war leen mën a topp daal ñun gisuñ ko ci yéen ba li fi nekk mooy nazunnukum daañu leen fooge sax kaasi ñun sax dañu jàpp ne ah yéen daal dageen di kii nii rek da di safal rek déggal lii rek yenent buy safal yaa ko mës gis loolu kay moo ak yàqute qaala yént yàlla nuux ne leen yaa qawmi yéen gaa yi araaytum xamal leen ma in kuntu bu fekkee man nekk naa ala bayinatin ci ay layu leer naññ min rabbi bu fekkee ne man fi ma taxaw baax na te li may wax it lu mu wér la mu bàyyi koo ci borom bi subhanahu wa waataani jox ma itam rahmatan nubuwa min indihi mu tukkee fi moom fa ummiyat lëmeef na aleykum ci yéen mbir mi mbir moom dafa la mu ci yéen ndax xamu leen mbir mi nu mu demee dëgg-dëgg bu boobaa yéen mbir mi leer ma te leerut leen anulzimukumuha ndax dañ leen di forcer ngeen nangu ko boog hmm? ah déedéet ñun duñ leen forcer te wa antum mbir moom yéen kaarihuna way contre ngeen laa ñeel li ma indi su ngeen ko contrer man duma leen forcer ne da ngeen koy gëm far force man daal li ma war mooy wax te maa ngee wax te it maa ngi kaa waxee ni ma yàlla waxee naa ko waxee ok man nag laajuma leen ci weer laajuma leen ci àllarba laajuma leen ci ngeen demal ma tool laajuma leen ci genn weexal nag wa yaa mi yéen gaa yi laa salukum lu ma leen laaj alayhi ci jàngal gi ma leen di jàngal euh, message yàlla laajuma leen ci maalal alal ju alal ju ngeen di joxe ndax xam naa ne mënu leen maa fay sama fay moom ba ma xamu ne mënu leen ko laa jël ko yàlla in ajira de sama pay ci lii may jàngale daal illaa la laa dudul war na yàlla yàlla dong moo ko garanté waaye du yéen lenn ci kilifa yi naka d'accord ñun sax bëgg nañoo gëm waaye dafa am ñu lay wër ñoo xam ne daal ñun daal personalise yi doy ni ñun daal nekk ay notable nekk kilifa daal tabaarakallaahu di ànd ak ñenn ñi benn jotaay daal ñun doon ñu déranger ndax suñu yeneen mbokk yi yeneen personnalité bu ñëwee fekk ñu ànd ak ñii jotaay loolu day wàññi suñu garaat daal xam naa soo leen mënoon a dàq daal nga ñuy may seen audience bopp di leen may seen audience bopp daal ci la mbir ma doon dàqee yént yàlla noonu du am nag ñii moom yàlla la ba fi dara nekkulee ñoo fi ne bàyyi ba dara nekk fi nag ngeen naa dégaase gaa yi xalaatuma ko ñemewuma ko wa ma ana den man bi taaridi alladina may aji dégaase gaa yi dàq gaa yi nga xam ne amanu comme ni ngeen ko bëggee ah déedéet xalaatuma ko innahum naka ñoom ñii ngeen bëgg ma dàq leen mulaaqu rabbihim way dajale ñeek seen boroom ëllëg mu fay leen lañ doon def walakin ni waaye man nag xam naa seen xel a gàtt seen xalaat it soriwul araakum fooge naa leen xaw man <laughs> day fayu di day am na lu ñu ko waxoon léegi <laughs> xaw man ngeen di ay nit yoo xam ne tey yàlla na yu ngeen ak a génn réer yéen dee raay bi moom réer na moom mu ne wa yaa xaw yen yéen gars yi man yanduni ana kan moo may jàppale ana kan moo may dimbale minallahi ci du may yàlla in tarattuhum ndegam dàq naa gaay yi ñii ngeen bëgg ma dégaase leen di entourage bi mu wër da ngeen a bëgg ma dàq leen ngir seen néew doole ak seen suufe seen nekk baa la ci ni ngeen ko gisee yéen waa léegi su ma ko demee su ma ko defee ëllëg lu may laaj ca kanamu yàlla gaa yi ne teg mu ne alors afala tazakkaru te ngeen am xel te jëfandikoo ko comme yéen mënu leen maa garanti ca kanamu yàlla kay lu ngeen bëggee ma dàqale dégg nga ko baax xam nga wax nañ ko sànq man raalakum alayna min fadlin loolu lañ ko waxoon mm-hmm. gisuñu benn ngëneel daal bu nekk ci yéen du alal du daraja du pouvoir mm-hmm. bañ ñu war leen a topp yéen kay bu fekkee yenente ngeen mm-hmm. moom it muy tontu lool day tontu lool di day tontu loola dégg nga de eh, loo teg wala aqulu waxuma lakum ñeel leen na indi mës na nekk fi man xasaynullah maa nga seeni wërsëgi yàlla yi man de mësuma leen kaa wax Hmm? te itam ñii ngeen wax ne ay baadala dong lañu seen mbir xawma ci dara dégloo wala aalamu musuma wax ne xam naa alxayba musuma leen kaa wax musu leen kaa wax day tontu wa ma naraka tabaak ila alladina hum araziluna badiya ray loolu lay tontu wala aqulu musuma wax itam na inni malakun day tontu maa naraaka illa basara mislana loolay tontu xam nga gaa yi ko waxoon na ko yow daal doo daal lu nit comme ñun mu ne déet wala aqul musuma wax ak yéen nag indi man mii kat malakul musuma leen kaa wax nit dong laa comme yéen nag wala ba tey li ladi ñel ñi nga xam ne tasdari dana ko xeeb mu seen bët lañ lañ naan lañ yuti yom di leen jox allahu yàlla xayran yiw musuma leen wax loolu mosuma leen wax lool allahu yàlla daal aalamu aji xam la bi maa fi anfusihim li nekk ci seen biir xol yëpp ñoom li nekk seen biir xol ak yéen ak man yàlla rek a xam inni man daal idan koon bu fekkee yii nii passé wax naa ko te waxuma ko la min azalimin kon bokk naa ci tooñkat yi xaalu ñu ne yàlla nu xat yaa daal te naa werante nga ak ñun coowaa nga ak ñun ba fa ak sarta bëril nga ji daal sa dàgg sante beeg coowoo bi fa atinaa indil nu bi maa taidunaa ci li ñuy tëkkoo di ñu ko dig in kunta ndegam bokk nga min sadiqin ndegam wax nga dëggeey li ngay digge na ñëw li ñuy menacé guddeeg bëccëg subaa ngoon na ñëw bu fekkee wax nga dëgg xaala góor gi ne leen d'accord eh. innama yatikum duma lu dana leen indil bihi ci loola ngeen di laaj allahu yàlla insha jamono bu ko neexee nag yàlla daal moo xam kañ la kañ lay ñëw ren lay doon déwén léegi suba gannaaw suba xaw ma ko kooku yàllaa ko xam xam naa daal bu ñëwee du ngeen rëcc moom loolu moom xam naa ko wa ma antum déet yéen bi mu'jizina ngeen di wan mën a mën a raw yàlla te nag comme man maa ngi leen di laaye biir di leen teg ci yoon nangu leen dégg li may wax ah baax na wala yanfaakum du leen jariñ nusxi samag laaye biir in arattu ndegam bëgg naa an an saxama lakum ñeel leen man daal li ma leen tegee ci yoon nii dafa mel ni déggu leen li may wax de te man yiw rek laa leen yéene in kaana bu fekkee nekk na allahu yàlla yuriidu du bëgg ci yéen an yuxwiyakum mu bewel leen bu fekkee yàlla leen bëgg wàcc raay bi bëgg leen a cekki raay bi du sotti ndax yàlla namu na mu yàlla jàll sama namu na mu du jàll ci waaw xëy na yàlla loolu la bëgg ci yéen la da bëgg raay bi moo tax wu moom yàlla rabbukum mooy seen boroom te wa ilayhi ci yàlla itam turjauna leef leen di delloo yéen ñëpp mu lijjanti seen i mbir am wala boog yaquluuna dañuy wax ñoom ñi gëmul yàlla ne alquran ji iftaraahu yenent bi moo ko kere yenent bi moo ko duur ñu wax loolu yonent bi yonent bi ne d'accord bu fekkee maa ko wax ci sama coobare bopp bu fekkee maa wax ci sama coobare bopp bu ay duma waree na dal sama kaw xul lee in iftaraytuhu ndegam duur naa ko ci sama coobare bopp comme ni ngeen ko waxee fa alayya war na ma ijraami bàkkaaru duma ya te nag wa ana man yonent bi bari un ko dañ ba set wecci laa sama yón nekkul mimma tujrimun ci li ngeen di fàggu ci bàkkaar sama yoon nekku ci mm-hmm. maanaam bu ci ay duma waree ci seen kaw kese laa delsi mm-hmm. ma ngoog nee na wa uxiya wax yoof ilaa nuuxin jëm ci yent yàlla nuux mm-hmm. ne ko annahu li am mooy lañ yu mi ne du gëm mukk mukk mukk min xawmika sa nit ñii du ñu gëm mukk mukk mukk mukk illa man lu dul koo xam ne kat amana gëmoon na bu yàgg lu dul ñi gëm ànd ak yow rek benn benn yi ci gëm yow ñoo lay nangul waaye ñu ci des tabaarakallaahu tus waaye nag fala tabta is bul jàq bi maa kaanu ci la nga xam ne nekkoon nañu na di ko jëfandikoo ci naka sudut noona liñ fi nekkee ci naka sudut noona bu mu la tax a xaddi continuel bu tax na it tax nga yaakaar na li nga nekk du dëgg fi nga jàpp foofu la jàppal rek continuer dana baax mu ne yent yàlla ne eh, eh, yent yàlla noonu ne rabbi la tasar ala ardi minal kaafiriina yara yàlla faagaagal leen faagaagal leen jot na ah sama borom naka nag defaral gaal yent yàlla noo uti dénk uti bant tabaarakallaahu pour defal gaal ba mu yett gaal ga nag gaa yi romb ko ci pénc ma mu gaar dénk yéeg yi ñoo gaal yëpp ak pont yi kooku forom ne ah kay moo gën wax dëgg soppeeku nga sarpaañe de hey yeneen bi soppeeku na sarpaañe waay xam nga sarpaañe lañ koy wax ana saar sarpaañe la ñuy wax <laughs> kon dama yàq naa baat bi nag maa ngi lakk dëgg beccam ginnaaw di ah ah nii moo gën su ko nga am waaye fàttali ñu rek yàlla nee na yenent bi yàlla nee na yàlla nee na jo amul àpp te ki ñuy wax gisuñu dara a ah, dafa doy waay mu yett gaal gu rëy lool gu toll ni innama def ko ñetti kal nag waaw gaal ga def ko ñetti kal kal benn bi njaay àll yi ñoo ci ne ak ndegment yi mooy bi ci suuf beneen kal bi ci des baahima yi ñoo ci ne beneen bi ci des tabaarakallaahu nit ñi ñoo ci ne dégg nga ko bu baax mm-hmm. ba nga xamee ne nag mu ngay yab yi cay dugg mbaam ba mu nee bay dugg iblis dafa la ngaamu ci geen bi mbaam tëb tëb pirti pirti iblis jàpp rek nu na ko duggal mu ne kaa ah, saay saay bay jàpp sama geen mënu maa dugguti doo ci wax mu ne ko waaye duggal force dugg rek nga am nag iblis ah kooku di saay saay rek ba mu ko waxee mu ñetti mu ne ko doonte iblis la nekk la ngaamu ci sa geen bi duggal Iblis nag kenn la duggaale di maale mu ne ko génneel mu ne ko mukk du génn de génn xanaa kon ma al ko xalaatuma ko yàlla nag ba mu waxee yàlla nuux defaral gaal ah ba muy defar gaal nag mu ne gaal ak joor gi ndox amu fi géej amu fi dara amu fi ñu ne ma yettal gaal ah lii da doy na waar yàlla bu gaay dañuy bëgg a xam nga yonent yàlla nuux weddiwul ci liggéey yi def ñu wàcce ko wàcc waay ku weddi loolu dagan na ci bayaan léeg-léeg doo weddi ñu wàcc la wàcc waay ku weddi ndax lu indi wàcc waay ku weddi ki mooy waaw gaal ak joor gi fan la fiy defee nangam nangam xalaat boobu mu indi rek yàlla tontuwaale ko ci biir ne dañuy dee de feddali ko kay ñu dem was naa liggéeyal alfulka gaal bi aayu naa sunu teewaay ñun yàlla wax waxyi naa ak suñu ndigal wala tuqaatim ni bu ma ñaan intervention ah fi lesi ne ci gaa yi xam ne zalamu yàlla na ko yettal gaal farta bu ma ñaan intervention mu ne déet mbaadu gaa yi dañuy bëgg a dee yàlla na ko innahum gis nga innahum xarfu tawkiid boobu loolu ko fi indi weddi wu la pare ñu indi ko wàcc waay ko weddi xalaat gi ma waaw man mbaadu gaa yi dañuy bëgg a lab dégg dégg googu daal moo indi innahum ñoom ñooñu dama ne muxuraxu na dañuy lab laa wax mu jeex léegi nag bu muy defar gaal gu wax naa la fu mu romb gaa yi ne soppi na sarpaañ yi soppeeku na ko mooy defar gaal ah nii moo gën kay kenn ku ne kontaan ca waaye yemuñ ca ba gaal ga ba demee ba pare te yàlla ñëwagul ak mbiram dañuy def seen potiwaas yooyu ñuy fanaanoo moom la ñoo sutti ca gaal ga bu ñu yeewoo saay saay lañ waaw liggéey na ba pare gaal gaa nga fa ne ñu mu ñu maaral kay de xaar ndigalal yàlla ñoom daal ku ci yeewu rek sa foos bu fees foofu nga koy jëmale baax ba yàlla na mee dogal ay mbiram ñoom ña ko ci daan def ñëpp ebola dugg leen wala kosa kosa wala façon yi demee na yooy feebar bu garaaw dugg leen nag yaram yëpp nekk góom ba ñëwee ci moom wax ko yàlla ne ko suñ ñëwee ci yow di la wax pour luy faj feebar bi ne leen liñ defoon ci gaal gi nañ ko riixoo wér <laughs> lañ suti woon ci gaal ga loolu lañ fi xoo wér di jeex na dañ doon sës rek <laughs> dañu nekk kilifa dëgg dégg ko alquran ne ne wa kullama marra ñu rombee alayhi ci yent yàlla no saa bu rombee mala un mbooloo min qawmihi ca bokki boppam ya saqiru minhu ñu xàqataay ko ay sëñ bi soppeeku na soppeeku na ministre sarpañe waay ah yàlla ne waaw yent yàlla no ne in tasxaru ndegam yéen a ngee mokke ak a reetaan ak a këll këllee min naa ci ñun ah ñun dafa inna nasxaru minkum daañu fayu daañu ree minkum ci yéen kama tasxarun mooy ëllëg ba ngeen jëlee la ca gaal ga di ko riixawaat seen yaram yi pour wér daañ ci kontaan de min baabil musaaka la ëllëg itam bu ngeen di lam ñuy mucc tabaarakallaahu daañu kontaan de fa sawfa daa ngeen xam ni nag man yaati kañ lay ñëwal adaabun ay duma ñu nag yéen kan lañ ciy duma mbir mi daan leeri ci kanam hmm. duma yoo xam ne yux siy dana ko gàcceel xotti suturaam wa yaxillu wàcc alayhi ci moom azabun ay duma mukimun yu sax a sax hmm. ba defaloo gaal ga yeb ci yooyu ma la wax ne moom la ko ci yàlla yebloo pour yént yàlla nu xam ne mbir mi ñëw na fuur ba fa nekkoon moo njëkk a fees dell ak ndox hmm. fuur ba ñu daan lakkee mbur fuur da xam nga ne bu feesee moom li naan ñecca wàllu waa daanoo masama masama la sa pind ba ñecca wàllu waa buñ daanoo ñee pind ba matul di wax asamaan joxe lu am suuf joxe am ba mu soob yàlla yàlla def la mu def ñu dem xataa jaa dem ba ñëw am amruna sunu mbir ñun yàlla tamooy mooy alkane ga wa faara fuur na a tanuuru fuur bañ doon lakkee mburu xul laa wax nañu naka ihmil sëfal fiihaa ci gaal gi sëf ci min kulli zawjayni ci bépp peer lu la mu dugal ci góor ak jigéen lu la mu dugal ci góor ak jigéen lu la mu dugal ci góor ak jigéen comme yooyu ma la waxoon léegi is na ñaar lu ne daal dugal ci góor ak jigéen ñaar waaw yépp mu dugal leen ca gaal ga ndax ñoo war a taxawalaat adduna yi waalaka ak sa ñoñ ñi la ci nangul illaa man lul koo xam ne sabaka jiitu na alayhi ci moom alxawlu baatu mbugal bi lu dul ñi nga xam ne dañoo war lab de ñooñu moom duñ dugg ca gaal ga dégg nga ko waaye wama amana gëmul waman ak képp ko afan képp koo xam ne amana gëm na yént yàlla nuux waaye wama amana gëmul maahu ànd ak yént yàlla nuux illa xalilun lu dul ñu tuuti lool néew doole lool mm. ñu tuuti lool lool toll ak juróom-ñett fukk rek mm. ñeen fukk ci ay jigéen ñeen fukk ci ay góor mm. te xool ni fi yàggee rek hmm? ba ñu demee ba ndox mi ñëw nag asamaan joxe lu mu am ci ndigalal yàlla suuf it joxe mu am ci ndigalal yàlla yàlla ne leen yéeg leen ci gaal gi gaal gi nag machine bi kay dawal mooy bismillah bi kay teeral mooy bismillah yàlla leen irkabu wala war leen yéeg leen fiihaa ci biir gaal gi bismillahi tur yàlla mujra majraha moo koy dawal de wa mursaha it mooy teer waayam bismillah moo koy dawal moo koy teeral inna rabbi naka sama boroom la gafurun ku bëri sutura la waaye rahimun ku bëri yërmande la ci tabarakallah wahiya moom gaal ga yàlla ba mu wàccee taw ñeen fukki fan asamaan di ko taw guddi baag bëccëg fa fatahnaa abwaaba sama bi maa in munhamir wa fajjarnaa arda uyuna faltaqal maa ala amrin qad qudir ma ko tabaarakallah ba montagne ba fa géttoon sutoon fa nga xam ne montagne ba ci boppam tolloon na ñeen fukki zira di ñaar fukki meetar mbaalu ko ëpp ndox ma dem na ba am na seen jigéen yoo xam ne ragaloon tax mu dem foofa ngir ragal lab ak doomam ja fa ko ndox ma fekk hmm? labal ko mook doom ja hmm. waaw fa ko ndox ma fekk labal ko kon yàlla bu doon doxal yërmaande foofu moom day yërmaale doom ja yëpp bàyyi leen waaye gis nga yàlla foofu nam doxale hmm. noonu la demee moo tax mu ne wahiya moom gaal ga tajiri dafa daw bihim ak gaaya nekk ca biir dana daw fii mawjin ci duus duusu géej yoo xam ne dafa yëkkatikoo yëkkati kal yi ba mel ni ay montagne yu kawe lool xam nga duusu géej yi fii bu yëkkatikoo ni nga gisee da seen mu mel ni ab tund jamono bu yëkkatikoo yooya nag doon def moo gën a garaaw yi foofa nag nuux ah, ak njuréel wala xolub njuréel jàpp ko foofa waaye fii li yàllay jàngale rek ci diggante doomu yent yàlla nuux ji ak nuux diw moom a jur moom na fekk fa diw jaar nga jaar fa su ngeen bokkulee pas-pas itam juru la de juru la de ci xaqiqa juru la déedéet mukk bala mën a mën a jur daal da ngay bokk moom pas-pas bokk ci la muy dox nga di ci dox la muy wax nga di ko wax la muy jëf nga di ko jëf waaye doomu kilifa gi laata lam nekke woon nekke woon ah des na juru la ci xaqiqa ka la de dégg nga yërmaande googu jàppoon ak tax muy wàkkanteeg moom wa naadaa woona nuuhun yenti yàlla nuux ibnahu doom jooju yi wax kanaan kon maay doomu sëñ bi maay doomu kilifa gi dara du ma dal yooyu ay caaxaan la yàlla tënkuwul ci yooyu wa kaana nekk na moom doom ja fii maazilin ci beruwaay waay mooy taxaw fële beru gaal ga yént yàlla nuux di wax ak te moom waxanu yërmande ak waxanu cofeel mu nan kaa yaabu ne yow sama si ndoom irkab yéegal ci gaal gi maanaa ànd ak ñun wala takun bul bokk ànd maal kaafiriin moom dafa yaakaar doom ji ku gëm la ndeke doom ji ab bandi bu nekkoon ci kër gi la xaala doom ji de yaakaar ne mën na mucc ci pexe ma nga naan xaala mu naan yow baay saawi dinaa tafu ji dinaa làqu ji ilaa jabalin jëm ci am montagne boo xam ne yaa si mu nii dana ma musal minel maa yi ci labag ndox mi le dégg de mu ne bàyyi daal mën naa dem foo xam ne tabaarakallaahu man daal bu fa ndox mi du fu mën a agsi xaala bàyyi ne ko laa asima déet génn nag mucc di am al yow ma tey ni ma gisee mbir yi min amrillah tey daal fu waay di jaar ba mucc lu dul ci sama gaal gile mënul am illaa man dul koo xam ne rahima yërëm na ko te ñeme yërëm moo ñuy dugg ca gaal ga te yow nangoo dugg ci gaal gi alquran nag xam ne waxante bi bu yàggee yërmaande mën na tàbbi ci waxante bi ma nga ca montagne ba ci gaal gi duus bi ñëw rek diggale seen diggante wax ja jeex na duus bi ñëw diggale seen diggante wax ja jeex na waxaala digale na baynahuma diggante yent yàlla nuux ak baay ba al mawju duusu ndox mi fa kaana bokk na mujj na bokk moom doom ja minal muxraqiin ci ñuy labal ñi ba mu demee ba lab nag yàlla alak adduna bi la fi nekkoon lépp lépp lépp yàlla nag ci la wax na yaa ardu yow suuf si iblaayi wan nal ñii salaatal maa aki sa ndox mi wa yaa sama yow asamaan si aqlii aqlii mooy sébatal ndox mi nga doon taw arrêté ko wa xiida ñii seleef na almaa u ndox mi mu jeex ni la yàlla attee mbir mi naa asamaan bu benn toq wat waddati suuf li nga wan li nga génne woon wanaat ko gaaw mu jeex waxu di atteef na al amru mbir yi yàlla lii la alagee waa kër yént yàlla nuux ñoom ñëpp ñu dee ca tuufaan ma tabaarakallaahu wastawat gaal ga teeri na alal juudi ci benn xeer bu ñuy wax juudi nekk fële ca Iraq waxiila waxeef na foofa boodan soli ak yërmaande lil qawmi ñel gaa yi nga xam ne azalimin ñooy aji tooñ foofu nag wa naada woote na nuuxun yent yàlla nuux moo woo rabbahu boroomam woo ba nag mel ni ku koy tabat ay soxla am jàmbat yum mu koy jàmbat te xamutoon ne doomam ji doom la ci zahir waaye du doom ci xaqiqa dégg nga wax baax doom la ci zahir waaye doom ci xaqiqa ndax nangu wutoon gëm mu ne rabbi yow sama borom inna ibni naka sama njaboot gile sama doom ji ñuy wax kanaan moom de min ahli te yaa ma waxoon ne sa njaboot ñëpp daañu mucc hmm? yaa ma waxoon ne ma dugal fa euh, dugalal ci gaal gi bépp peer ak sa ñoñ loolu nga waxoon te kii mi ne ahli te man gis naa ne moom muccul dafa mujj faat sama borom te euh, yénti yàlla noonu ko wa inna waadaka nag sa sa dëxal daal sa randiw alxaku dëgg la mooy loo wax da nga def te wante yow ahkamul xaakimiin yaa dàq atte attekat yi yaakaar naa war mën nañ tax war nañ mën taxaw noonu euh, bàyyi ko foofu xam naa xisa nu wax li ci sax bariwul waaye ñu taxaw noonu rek dama koy bañ a forcé ñu jàng fatiha salaatul fati def ko hadi yi ci